salaamaaleykum wa rahmatullah euh, sama mbokk internet yi euh, seen serviteur Clédor moo ñëwaat tey euh, promettre leen benn direct pour waxtaanee ak yéen lu am am solo ci deminu Sénégal mais yàlla def mooy jóge ci yoon wu sori bu ma bett may doog a agsi donc maa ngi jégalu ci retard bi maa ngi jégalu aussi ci ci kanam gu sonn gi ak baat bu sonn beeg yooyu tout mais comme maa leen ko diggoon. donc dama ñëw pour wàccoog yéen euh, ci digge boobu euh, kon maa ngi dalal euh, suñu mbokk yi fi commencé dugg si xam nga ñuy tax tàqalu tuuti waxtaan bi pour xaar nit ñu ñëw donc mu ngi noonu donc maa ngi invité ay suñu ay quelques mbokk pour ñu pour ñu teewe waxtaan bi parce que waxtaan bu ama am am solo la ci tolluwaayu réew mi par rapport ak enjeu yu bees yi nga xam ni euh, moom la ñu jànkonteel donc euh, loolu mooy solo yu waxtaan bi euh, xam naa ne bu ci kanamee tuuti ñu may ñenn yenn mbokk yi teewlu comme ça ñu door waxtaan bi incha allah donc ñu ngi ciy invité ñëpp. donc euh, parce que waxtaan bu concerné ñëpp la donc euh, xam naa ni fii ay diir bu gàtt rek incha allah euh, dinañu dugg ci waxtaan bi incha allah donc encore une fois maa ngi jégalu ci guddee bi maa ngi jégalu ci guddee bi yoon moom ma bett comme je le disais tout à l'heure donc mais fi mu nekk nii. voilà ñu ngi ci ñu ngi jublu ci liggéey bi ci waxtaan bi Sénégal fi mu nekk nii dafa nekk ci benn tournant bu ama ama am solo boo xam ne euh, bëgg nañu daal euh, ñëpp bàyyi ci xel aussi bien euh, population yi que suñu décideurs yi suñu dirigeants yi suñu suñu homme politique yi ak ñëpp daal donc loolu mooy solo yu waxtaan bi Euh, dañuy xaw a taxirlu tuuti nii rek comme ça euh, nit ñi teewlu donc euh, maa ngi dalal Mamito Diop di dalal Babacar Ndiaye di dalal Kingsley Abdallah di dalal Sëñ Amidou Dieng di dalal Assane di dalal Lange Gardien sama boy maa nuyu maa ngi lay ziar Jean Paul Bas Gueye maa ngi lay maa ngi lay donc fàttewuñu Pape Khalil Gassama Euh, maa ngi lay ziar tamit Pape Khalil euh, ku may faral di suivre la di commenter samay samay post donte post yi bëriwul parce que je suis pas très très euh, Facebook waaw on me signale qu'il y a pas de son c'est vrai je crois que dama tafoon sama dama dama dama obsturé woon micro bi tuuti waaw maa ngi ziar maa ngi ziar maa ngi ziar donc son bi ñu ngi koy tawat donc xaaral ma gën a jege objectif bi. su fekkee ni son bi tane na aussi ngeen wax ma ko donc euh, voilà son bi normal na voilà je crois que ci ci man la woon pour ñuy doog dugg rek euh, Modou la merci Arfan Bakary merci Yaya Ka jaajëf yow tamit euh, ma dem ba Sëñ Touba maa ngi donc pour ñuy doog dugg on est déjà cinquante et Euh, dama façon yéene tey am ak yéen waxtaan euh, bu ama am solo ci lu ñu bokk Sénégal du jóob merci merci du Diop yow tam ki am xibaar yu am am solo donc Abdoul Ndiaye Assane Beng euh, Ndene juuf Daaru maa ngi leen di yéen ñëpp ak lum donc maa ngi jégalu d'abord pour ñuy doog dugg si ci retard bi parce que dama digg woon vingt une heures après ma def post pour diggee vingt trois heures parce que dama am déplacement bu ma bett bu sori boo xam ni dama ton ni vingt trois heures lu mu gàtt gàtt gàtt dana ma fekk fii mais maa ngi ni toog juste di àgg euh, moo tax kanam gi xaaw a xaaw a ñaaw ni xaaw a sonn ni baat bi tamit xaaw a xaaw a sonn ni donc euh, dama gaawantu pour euh, waxtaan ak yéen avant may jublu ci leneen waxtaan bi nag dañ koy door tey duñ ko mën a yaatal lool mais dinañ ko àggali suba incha allah ci benn télévision de la place euh, je crois euh, que mën naa leen ko wax sax euh, ci fin wu émission bi naa leen wax fu ñuy àggalee waxtaan bi léegi nag Medina maa ngi lay ziar gis naa di dégg je crois que léegi ñu atteindre cent pour démarrer parce que man tàmmuma di teg musique pour xaar nit ñi nit ñi dugg moo tax may waxtaan ak yéen. Euh, le temps on est 84 déjà euh, su ñu amee 100 rek commencé commencé dépassé je crois que après nit ñi dañ ko suivre euh, ma leen di ñaan rek ngeen jàpp ci ci communication bi ngeen partage ko parce que lu ñu bokk la lu lu ma ñor la ngeen jàppale ma ngeen partage ko parce que ñëpp mënuñu connecté wu ci live heure bi mais ku ci jàpp ci partage rek def nga une mission citoyenne parce que de quoi il s'agit Euh, def naa maa ngi dugg ci waxtaan bi on est quatre vingt dix neuf donc on est on est cent euh, de quoi il s'agit tey xam naa ñu bëri euh, dinañu xalaat mbirum politique mbirum élection mbirum conseil constitutionnel ak yooyu loolu taxul jóg waxtaan bi tey bu ngeen ko yàgg naa di wax ne Sénégal yàlla daf ko may xéwal boo xam ne Europe daf ci teg bët Euh, Khady Sow Cissé Tëddëgoo maa ngi lay ziar madame madame Cissé maa ngi lay ziar sama xarit sama coloré euh, maa ngi lay ziar bu baax ak waa kër gi yëpp donc yàgg naa leen wax ni euh, Sénégal yàlla daf ko dote ay ressources yu spéciales yoo xam ne Europe daf ci teg bët et principalement gazu Saint-Louis bi yàgg ngeen ma dégg ma naan gazu Saint-Louis bi moom la Europe ci moom la Europe compté pour briser le monopole russe sur le gaz européen loolu képp ku may suivre dégg na ma ma wax ko ay yoon yi yoon yi yoon yoon yoon boobu conflit bi amagul maanaam diggante Ukraine ak Russie amagul donc yàgg naa ci attirer attention nit ñi léegi euh, ci contexte bi ñu nekk nii demande boobu dafa gën a jéggi dayoo dafa gën a stratégique dafa gën a exacerbé dafa gën a pressant donc euh, pour fàttali ñi ko xam ak ñi ko xamul yépp yàlla daf ñu baaxee benn gisement bu nekk diggante frontière euh, Sénégal ak Mauritanie bu ñu tuddee Grande Tortue Ahmeyim ñun ñu tuddee woon ko gëmbal euh, donc gisement boobu yàlla daf ci dë dëgëñ dëxëñ soixante-dix trillions de pieds cubes de gaz trillion mooy mille milliards mooy un trillion <laughs> mille milliards mooy un trillion ngeen jàpp mesure boobu trillion T R I deux L trillion donc un trillion mooy mille milliards soixante dix trillion mooy soixante dix mille milliards de pieds cubes pieds cubes nag moo gën a tuuti mètre cube mais c'est quand énorme loolu lañu xayma xaymaa potentiel lu li tëdd foofu ci gaz te loolu xayma rek la. parce que yàlla rek moo xam lu mu fa dëxëñ nu mu toll donc xayma doomu aadama kese ci seen xayma tamit euh, Cosmos ak BP Cosmos surtout nee na gisement boobu c'est exploitable pendant deux cent soixante dix ans ñaari téeméeri at ak juróom-ñaari fukk mën nañu di ngacc ci gaz boobu te du ko tax a jeex pour rappel Arabie Saoudite ci pays yi ëpp pétrole la bokk te ñoom ba ñu commencé produit seen pétrole ça fait des siècles te ba léegi ñu ngi am pétrole loolu mooy ressource naturelle du luy gaaw a jeex euh, Sococim toujours ma jox exemple bi 1948 ba léegi mu ngi am ciment ci zone Bargny bi nga xam ne fa lay waxi boobu ba tey donc gisement euh, surtout euh, énergie fossile matière fissile fossile maanaam lu mel ni pétrole ak gaz loolu mooy gën a gudd fan mooy gën a yàgg tamit que yenn yenn minerais yi donc foofu am nañ fa potentiel bu ama ama am solo boo xam ne dañ ko bokk ak Mauritanie ñi ñu koy tuddee GTA euh, Grande Tortue Ahmeyim mooy GTA Grande Tortue euh, Ahmeyim Ahmeyim mooy wàllu Mauritanie dafa am ñaari teen yu tudd Ahmeyim 1 ak Ahmeyim 2 ak benn teen côté Sénégal euh, bu tudd Gëmbal 1 mais gëmbal un boobu moo ëpp ñaari APM yëpp ba noppi système de vase communicant la boo xam ni gaz bi yëpp foofu lay foofu lay féete bon loolu c'est un détail léegi gaz boobu ñu ngi ko xayma ci plan de production bi nga xam ni Cosmos ak bépp ñoo ko déposé ñoom nee nañu bés bu ne danañu produire lu tolloog quatorze millions et demi de mètres cubes de gaz bi yoon mètre cube laa wax. 14 millions et demi de mètres cubes de gaz donc 14 millions et demi de mètres cubes de gaz lu bëri bëri bëri bëri la ci gaz beneen xayma mooy bi Macky Sall di wax da ko évaluer moom en en tonnes day day day tolloog deux millions cinq cent mille tonnes par an en début d'exploitation deux millions cinq cent mille ton par an Euh, ku ma mën a dimbali diviser ma ko par trois cent soixante cinq jours di ngeen xam euh, ñaata tonnes par jour lay la la la équivaloir après ma wax leen lan mooy norme mètre cube ñu mën ko xayma ci xayma bu xel yëpp mën a jàpp donc deux millions cinq cent milles divisé par trois cent soixante cinq nañ ma ko defal ngir yàlla comme ça parce que gaz ak pétrole duñ ko évaluer par an loolu lëndëmal nit la waaw loolu lëndëmal nit la. le euh, par jour la ñuy évaluer production pétrolière ak gazière tant de baril jour tant de mètre cube jour bokkul ak or tant de tonnes par an phosphate tant de tonnes par an même arachide tant de tonnes par an euh, hydrocarbures rek mooy production quotidienne journalière chaque jour donc quatorze ci comme ñun mètre cube la ñu miin xamuñu TCF euh, euh, xamuñu fit pied cube nañu raisonner en termes de mètre cube donc ci mètre cube ci ay mètre cube yi ñuy xam ñun wala norme mètre cube mooy mooy euh, mètre cube liquide euh, mu ngi toll ci quatorze millions et demi de mètres cubes par jour gisement boobu donc loolu la Europe te woon bët bu yàgg laata conflit bi ba ma doon leen wax ni benn femmes buy liggéey BP mooy la patronne de BP pour le Sénégal et la Mauritanie qui s'appelle Emma Delaney ku ko cherché internet dina ko gis parce que aw ma support parce que dama tardé moo tax euh, waajaluma leen lu bëri li mu leen bëggoon a waajal cal euh, calculé nañ ko soixante huit mille tonnes soixante huit mille euh, six mille huit cent soixante tonnes à merci beaucoup Modou Madou merci beaucoup donc environ soixante huit mille tonnes par jour par jour loolu lu bëri lu bëri lu bëri la ci ci quantité de gaz merci euh, six mille cent cinquante tonnes donc loolu mooy production quotidienne bi euh, bi génn ci bloc boobu donc je disais que Emma Delaney Delaney D E L A euh, D E L A N bu ngeen ko recherché di ngeen gis une femme Emma Delaney wala même recherche vocale di ngeen ko gis une femme c'est une British elle est très jeune c'est la patronne de Macky Sall et du président de Mauritanie surtout le président Aziz euh, qui a été déchu kooku moo tënk président Aziz ak Mauritanie pour ñu trouver un accord pour exploitation gisement Ahmeyim euh, Grande Tortue bi parce que ñoom dañu amoon ay impératifs de de production pour briser le monopole euh, sur, russe sur le gaz européen loolu ñu ngi ci deux mille vingt dañ doon waaxu pour que deux mille vingt et un ñu en phase de production euh, euh, corona bi moo ko moo ko tardeel donc léegi cette femme là elle est en mission commandée pour briser le monopole russe sur le gaz européen depuis longtemps depuis deux mille dix neuf Emma Delaney elle s'appelle elle a ses bureaux ici à Dakar et ce sera pas étonnant qu'il lui arrive un jour quelque chose parce que il y a un grand euh, tiraillement entre le bloc de l'Est et, et l'Europe pour le pour le contrôle des réserves de gaz euh, du monde ngeen baal ma téléphone bay vibré on m'appelle parce que xamuñu ni dama nekk en en live donc léegi contexte boobu moo évoluer di évoluer di évoluer ba guerru Ukraine bi ñëw li waral jotaay bii nag mooy yéen ñëpp dégg ngeen gis ngeen ni euh, le le chancelier euh, Olaf Scholz ñëw na fi dimanche seet si Macky Sall parce que Allemagne mooy état bu fekkee nii yéen a ngi suivre euh, conflit ukrainien bi mooy état européen bi gën a réticent ci sanctions yi ñu war a appliquer euh, Russie parce que moom nee na il ne peut pas l'Allemagne elle ne peut pas se priver du gaz russe munu ko loolu c'est lui demander de se planter une couteau un, un couteau euh, dans le ventre loolu munu ko kon moom amagul solution pour approvisionnement am en gaz léegi américain yi dañu bëgg a profiter ci conflit bi pour jaay Europe gaz de schiste mais gaz de schiste non seulement day gën a cher parce que bu koy indi et c'est de moindre qualité que le que le méthane bi nga xam ne moom la euh, Russie di jox Europe donc Allemagne 65 pour cent euh, de sa consommation en gaz mu ngi jóge Europe. te ñu ngi doon waaj a yokk potentiel boobu parce que am na beneen deuxième gazoduc boo xam ne c'est presque achevé bu ñuy tuddee Nord Stream 2 boo xam ne euh, au niveau de Gazprom l'ex chancelier allemand Gerhard Schröder nga xam ni moom moo jiite woon Allemagne kooku mooy piloter projet boobu pour approvisionner en Allemagne en gaz kooku mu ngi liggéey ak Russie actuellement l'ancien chancelier allemand euh, Gerhard Schröder donc loolu problème la épine la ci tànku euh, Europe parce que ñoom ñëpp dañu bëgg a manko pour daan Russie sanctionné leen euh, euh, bañ a bañ a jëlati seen gaz moo tax léegi pour substitution Allemagne ñëw Sénégal pour waxtaan ak Macky Sall pour waxtaan ak Sénégal pour que suñu gisement bu énorme boobu suppléer carence bi ñuy am ci bu fekkee ni Russie euh, indeetul euh, euh, gaz Allemagne parce que Russie nee nañ leen dinañu arrêter de toute façon seen approvisionnement en gaz bu ñu fayul en rouble wala en yuan parce que comme dañ leen exclure ci système bancaire bi ñuy wax SWIFT benn codification bancaire boo xam ne ça permet d'abord aux Américains de contrôler tous les transferts mondiaux qui se font au niveau bancaire mooy ay code IBAN yooy tout ça c'est le SWIFT c'est le même système interbancaire euh, non seulement dañ ci génnee Russie mais euh, dañ leen bëgg a geler seen ay avoir yu ñu am ci banque euh, étrangère donc ñoom c'est normal dañu ñu bëgg a sécuriser euh, seen seen seen xaalis donc ñoom nangootuñu système européen bi léegi ils imposent la monnaie chinoise ou le rouble euh, information monnaie chinoise le yuan ou le RMB admettre nañ ko dans l'escarcelle de la banque mondiale c'est-à-dire considéré nañ ko comme devise mën na ko jëfandikoo pour jëndante ak jaayante ci bitim réew euh, jëndante ak jaayante ci matière première xayma ci ay place boursière donc loolu dafay wàcce dollar bi day accélérer benn processus bu ñuy wax la dédollarisation te ci loolu lañ jëm parce que y a deux blocs qui léegi nag enjeu énergétique bi nga xam ne euh, moo am en Europe Allemagne dafa bëgg changer politique énergétique parce que dafa amoon ay écologistes yoo xam ne dañu taxawoon pour bañ euh, euh, centrale nucléaire am fa parce que y avait eu euh, les incidents de Tchernobyl et ñoom ñu jëlee ci leçon même si après y a eu Fukushima plus récemment donc léegi léegi ñoom dañu bannir nu mu tuddati nucléaire ci seen source énergétique dem ci gaz parce que gaz moo gën a propre pétrole moo gën a propre fuel moo gën a propre Euh, euh, énergie fossile fossile yu bëri donc léegi euh, merci Babacar Diaby donc léegi dañu changé waat option parce que dañu bëgg a au nucléaire parce que France tey jii li ko mettre à l'abri du gaz russe mooy moom li ëpp ci courant am ci ay centrales nucléaires lay jóge donc Allemagne dafa bëgg a dellu ci tànk yooyu kooku muy benn ñaareel bi dafa bëgg ut beneen source d' approvisionnement en gaz te Sénégal la ñuy négocier ñoom ak européens maa ngi ñëw nag ci solo waxtaan bi parce que dafa am benn instance politique intérieure boo xam ne bu ama ama am solo la boo xam ne dama bëgg ñu taxaw ci buñ ci àggee donc léegi euh, loolu moo tax moom mu ñëw fii ba mu fi jógee Niger la dem Niger lan moo fa am uranium uranium mooy énergie nucléaire mooy nucléaire donc ñoom. tubaab yi ñoom riche yi ñoom pays développé yi sans ñun du ñu dem la ñu soxla yépp mu ngi ci ñun ñun ñoo ko yor kon ñun suñu wàllu bopp ñun ñoo war a xam li ñu yor baal leen ma yëngu-yëngu yi ah, téléphone bi dama ko téye parce que mënu ma ko fixé euh, j'ai presque improvisé wax jotaay bi donc ñun li ñu am dañ ko war a xam parce que dañu toll ci contexte boo xam ni on doit tirer le meilleur de nos parce que tey la ëpp solo tey la ëpp valeur tey la ëpp prix tey la ëpp enjeu géostratégique tey la ëpp enjeu économique tey la ñu war a gën a mën a respecter Sénégal mais ñoom dina leen jaral lépp lépp lépp lépp lépp pour ñu teg loxo ci suñu gaz bi ñuy produire cinq bi te euh, gaz bi si quelque mois lañ koy produire deux mille vingt trois la ñu wax léegi loolu. am na beneen jaan bu ci laxasu dafa am benn plateforme flottante euh, de liquéfaction de gaz bu ñuy wax FPSO floating production storage and offloading vessel wala offloading unit euh, plateforme flottante de production de stockage et d'approvisionnement mooy FPSO floating production euh, storage and offloading vessel wala unit Euh, vaisselle mooy mooy mooy mooy navire euh, euh, unit mooy mooy mooy mooy unité donc ñun dañu commandé Sénégal ak Mauritanie benn plateforme flottante de liquéfaction de de de gaz donc c'est un c'est un terminal méthanier flottant boo xam ne ñu ngi ko war a installé au large de Saint-Louis à huit kilomètres seulement des côtes boo xam ne moom moo war a extraire. Euh, euh, euh, gaz gazu Saint-Louis bi ba noppi séddale ko donc navir boobu FPSO boobu da ngeen familiarisé wu ak moo boobu ñu ngi koy defaree Chine daanaka pare na ci contrat yi dafa waroon nekk moomeelu Sénégal ak Mauritanie après dix ans d'exploitation dañ ko dafa war a nekk suñu alal suñu bien suñu infrastructure après dix ans d' exploitation Macky Sall demoon na fi Mauritanie di essayer avion bu bees bi mu jëndee soixante milliards demul woon pour essayer avion bu bees bi mu jëndee soixante milliards dafa demoon pour signer beneen accord boo xam ni accord bu ñu publier wul la bu ñu waxul kenn la moo tax ma bëgg homme politique yi journalistes yi décideur yi intellectuels yi bàyyi xel bu baax a baax a baax ci li may wax pour demander compte euh, euh, gouvernement bi ñi ko mën les députés par exemple les leaders politiques par exemple comme Ousmane Sonko comme comme yeneen ñu interpeller gouvernement bi ci yii may wax nii c'est-à-dire euh, euh, contrat yi ñu dem signer ba nga xam ni plateforme bi ñu waroon a revenir au bout de dix ans d'exploitation dañ koy joxe en location dañu koy jox ñun en location ad vitam aeternam c'est-à-dire dañ koy défalquer des coûts de production euh, pétrolier li ñu naan cost oil bu ñu exploiter pétrole wala gaz dafa am benn montant bu ñuy defal défalqué au titre du recouvrement des coûts pétroliers pendant un certain nombre d'années qui n'est pas déterminé ou jusqu'à concurrence d'un certain volume qui n'est tout aussi pas déterminé déterminé wuñ ko ci contrat bi déterminé déterminé wuñ ko ci annexe contrat bi te loolu maa ngi ci interpellé direction de l'énergie ministère euh, du pétrole du gaz ñoom ñëpp cos pétrogaz ñoom ñëpp képp ku fi am ndomba tànk kuy lijjanti pétrole ak gaz man maa ngi leen ci interpellé te suba mercredi am na émission bu ñu bu ñu fent RTS bu wax suñu pétrole suñu gaz de 16h à 17h maa ngi leen ci interpellé tamit parce que loolu débat citoyen la war a doon ñun dañu war a xam donc Macky Sall dafa dem signer pour que loolu nekk toujours somme boo xam ni Sénégal ak Mauritanie ñu continuer di ko fay moom ak ñaari moom ak président Mauritanie ñoo d'accord loolu ba noppi 10 pour cent yi ñu waroon am ci bloc boobu léegi cinq pour cent lañ ci loolu lu ñu war a leeral la. Euh, histoire plateforme boobu mais problème bi yemul foofu fii conjoncture Europe ak Russie toll tubaab yi allemand yi français yi danañu def tout pour am Sénégal président bu leen di signer lu ñu bëgg d'ailleurs invité nañu Macky Sall euh, dans quelques jours fële euh, sommet G7 sommet yi nga xam ni pays développé yi ñoo fa ñoo fa nekk pays européens yi ñoo fa nekk invité nañu président Macky Sall sommet g dans quelques jours pour mu régle problème mu gazu Europe bi kon gazu Europe bi solution bi fii la te yàlla xam na ni yàgg naa leen ko wax ñi ma daan déglu yàgg nañu dégg avant conflit bi ma naan on compte sur le bloc de Saint-Louis pour briser le monopole russe sur le gaz européen parce que Russie Euh, gaz bi moo leen di mettre à l'abri des sanctions des Nations Unies et de l'Union européenne mooy seen arme stratégique c'est très important pour te te BP xaru na ba nekk majoritaire sur le bloc de Saint-Louis donc léegi sur le plan maintenant politique et c'est là que c'est important sur le plan politique bu ñu deful ndànk tubaab yi il risque de nous imposer Macky Sall même au-delà de 2030 parce que c'est quelqu'un qui est prêt à leur signer tout ce qu'ils veulent kooku muy benn ñaareel bi euh, ils vont pas chercher au Yémen en Irak en Iran du du, gaz ou ailleurs parce que Algérie dañu verrouillé euh, parce que y a l'influence russe là-bas parce que Algérie tam jëm nañ fa régler le problème du gaz fan yi rek euh, ils ont refusé ñu ñëw Sénégal donc léegi ils feront tout pour ñu am un valet au Sénégal parce que xam nañu ku mel ni président Ousmane Sonko par exemple c' est un souverainiste li may wax nañ ci bàyyi xel de c' est un panafricaniste c' est un souverainiste te gis nañu li xew Mali y' un vent de de souverain de souveraineté qui souffle en Afrique y' un vent panafricaniste qui souffle en Afrique au Mali au Niger au Burkina un peu partout et même au Sénégal te ci contexte bi. Sénégal bu amee un président qui est en dehors de tout système comme Ousmane Sonko par exemple dina mën a euh, asseoir souveraineté économique gu Sénégal ak souveraineté politique gu dëkkam comme Assimi Koïta ni mu koy defee xam nga par rapport aux aux aux aux Français qui toujours dominé le Mali bo doon leen jox sax autorisation de vol dans leur propre territoire ñoom ñu dindi loolu parce que loolu c'est c'est une aberration. c'est aussi une aberration nit ki am yëfam ñu ni ko tubaab bi ni ko yow 10 pour cent nga ci moom 90 pour cent bi ñoo ko moom donc loolu moo tax Olaf Scholz ñëw Sénégal parce que d'abord il part euh, sur ils partent euh, euh, sur des euh, rapports de change à leur avantage 90 pour cent contre 10 pour cent pour ñun et en plus euh, euh, ñun dañu am un président boo xam ne mais lu ko Macron sant lay def lu ko Union européenne sant lay def parce que Macky Sall intérim moo ñu jàppale ko rek mu maintenir au pouvoir donc s'il tient l'intérêt des Européens entre ses nga xam ni mën na ko brader mën nañ leen jox ay garanties par rapport aux Russes mais il ne se fera pas de scrupule il va leur dire écoutez euh, moi pour que je puisse défendre vos intérêts il faut m'aider à rester parce que mon pouvoir est menacé parce qu'il y a des il y a un homme politique qui prône autre chose. Donc, euh, voilà. Ouattara, il est bien président euh, en Côte d'Ivoire. C'est troisième mandat là. Alpha, Alpha, Alpha euh, euh, Condé. dañ ko coup d'état troisième mandat la am te ñëpp ngi seetaan Idriss Déby ñaata yoon la dépassé mandat je crois qu'il était à six mandats avant son assassinat euh, Mobutu Sese Seko c'était un dictateur France moo ko ngemboon Omar Bongo c'était un dictateur France moo ko ngemboon tous ses intérêts Jean Bédel Bokassa empereur de Centrafrique extravagant di jël ay jaman réew mi di ko fooye Giscard d'Estaing moo ko ngemboon fa doon vacances di am foofu ay jaman ak seen affaire donc ñoom démocratie bi ñuy prôné ci kaw la nii rek mais seen intérêt bu taxawee affaire démocratie amu ko amatul kon tey jii Macky s'il règle le problème du gaz européen avec notre gaz jox tubaab yi ay garantie ils seront prêts à le maintenir et ils ne voudront pas prendre le risque qu'un autre pouvoir vienne ici jouer les souverainistes défendre les intérêts du Sénégal donc foofu mooy yàqu waxtaan bi c'est-à-dire impact bi muy am ci suñu politique intérieure ñu ak impact bi muy am ci suñu état démocratie Parce que ne faut pas que nous soyons l'otage de l'Europe uniquement pour les intérêts de l'Europe sur ce gaz et, et, concomitamment à ce conflit entre l'Ukraine et la Russie. Bien sûr, ça impacter déjà l'Europe. Tu vois, la consommation en, en denrées de premier ministre, c'est en blé. Parce que la Russie, nous commencé à contrôler euh, la côte, tout, tous les ports ukrainiens qui ont desservi l'Europe. Euh, il reste que le port d'Odessa. Euh, euh, Mariupol est tombé. Odessa, la boucle est bouclée. foofu fatt na Nord Stream mooy gazoduc bi nga xam ni mooy alimenté Europe mu ngi jaar Ukraine donc su contrôle russe donc pour ñu tëj seen robinet lu yomb la mais sur sur l'incidence politique au Sénégal mooy ñoom ñu am un homme qui sert leurs intérêts et cet homme c'est pas Ousmane Sonko cet homme c'est Macky Sall C'est quelqu'un qui est prêt à tout accepter pour se maintenir au pouvoir et rester au pouvoir te fi mu nekk ni européens yi jaaxle nañu jaaxle jaaxle boo xam ne jaaxle nañu ba fi jaaxle yem ils sont prêts à faire toutes les concessions Macky Sall est en position de force ils sont prêts à toutes les concessions pour avoir notre gaz information information gaz bi nga xam ni moo lukki bëtu européen nekk saint production de quatorze millions et demi de mètres cubes par jour wala six mille huit cent cinquante neuf tonnes comme vous me l'avez si bien calculé par jour est-ce que xam ngeen ni li nekk Kayar bloc de Kayar moo ëpp li nekk Saint-Louis yàlla moo ñu defal loolu est-ce que xam ngeen ni Sangomar ak Jifeer am na gaz je certifie sur l'honneur que gaz boobu nekk Sangomar ak Jifeer moo ëpp gaz bi nekk saint bi nga xam ne ci la européen yaakaar pour régler seen problème kon ñun lan mooy suñu potentiel yi ñu ñuy classé bu ñu nekkee en phase de pleine production maanaam suñu exploité euh, Gëmbël Yaakaar Teranga c'est les puits qui sont à Kayar euh, exploité Sangomar Jifeer ak Rufisque même Rufisque am na gaz on sera dans le top 5 des producteurs de gaz dans le top 5 des de gaz donc li tubaab yi teg bët lu ko ëpp la ñu am Kayar ak ak ak ak ci fer kon tey ji Sénégal ay décideur am ay homme politique ay leader am ay journaliste ay intellectuel am ay étudiant ay citoyen war nañu xam lan mooy réellement potentialité Sénégal man ci yoon bu sore laa jóge euh, mais taluma noppalu taluma reer parce que lii laa diggee woon ak yéen il fallait ma wàccoog yéen ci loolu parce que suba damay àggali waxtaan bi ci beneen médium mais il fale ma jox leen ko lillaahi wa rasulihi ngeen partagé ko parce que lépp lu mu leen jox lu wér a wér a wér naa leen génneel documentation bi yëpp dafa leen vidéo euh, dans YouTube boo xam ne dañ koy monté mu leer ma créé leen banque de données boo xam ne éléments yi ngeen bëgg yëpp dañ ko ci fekk ngeen nekk pour man des relais de communication maanaam di jàllale message beeg information bi ñëpp jot ci xam ko parce que fi mu nekk nii Macky Sall dafay surfer ci sous information wu opinion publique bi ci sous information yu homme politique yi ci sous information yu journalistes yeeg intellectuels yi ci sous information yu étudiants yeeg citoyens te loolu dafa war a dakk l'information et à notre portée donc Sénégal dafa am potentiel gazier bu énorme et on parle même encore de pétrole ci jamono joo xam ne Europe fi mu nekk nii russe daf leen xoj parce que hiver bii di ñëw ils ont des soucis hiver bii di ñëw bientôt décembre hiver bii di ñëw ils ont des soucis te russe yi s'ils ferment le robinet ils sont morts Allemagne les les industries seen coût de production euh, produits manufacturés yi dañ ko multiplier par cent ni par soixante parce que ils dépendent du gaz Finlande bi adhéré OTAN cent pour cent de son gaz vient de Russie 100 pour cent laa wax 100 pour cent merci Saliou Pouy 100 cent de son gaz donc ñoom euh, euh, dépendance boobu moo leen jaaxal te ñun africains yi nga xam ni li ñu am xamuñu ko sax benn ñaareel bi suñuy njiit ñoom seeni poche moo leen moo leen moo leen moo leen intéressé euh, intérêt askan bi yitteelu leen ci ñun la ñuy ñëw. ci suñu njiit yi nga xam ne ay valet lañu xamuñu luy souveraineté xamuñu luy intérêt national xamuñu luy patriotisme ñooñu la ñuy utiliser pour am ñun ñoom li ñu bëgg si ñun te ñoom balaa ñuy am li ñu bëgg ci ñun ñun war nañu am li ñu soxla ci ñoom ba pare loolu euh, mooy coopération gagnant gagnant parce que ñun vraiment yàlla wàccoon ak ñun sur le plan des ressources te même uranium bi mu wuti Niger pour seen centrale nucléaire yi bii def euh, énergie nucléaire mënuñu ko utiliser te dugaluñ ko ci ay tube en zirconium ay mbar yoo xam ni zirconium la parce que zircon zirconium zircon bu bu bu alliage zircon la wañ la parce que bu ñu ko lakkee euh, dafay oxydé wu moo tax lootul tudd zircon day tudd zirconium day nag weñ bu weex bu mel ni inox propriété am particulière mooy dafa supporter tàngaay euh, dafa supporter euh, jusqu'à trois mille degré de chaleur daf ko supporter kon euh, tàngaayu réacteur cœuru réacteur tàngaayam sept cent degré la agul sax mille degré zirconium deux mille neuf cent degrés deux mille neuf cent cinquante degrés à trois mille degrés kon matière boobu rek moo mën a nekk dans le cœur d'un réacteur nucléaire même un réacteur d'avion d'avion de chasse de fusée de de missile de tout tout ce qui est balistique loolu matériau bu stratégique la boo xam ne moom également valeur am day yokku parce que le nucléaire est une seconde option énergétique pour l'Europe qui avait commencé à y renoncer mais léegi ñu ngi koy reprendre parce que euh, Russie dañ leen jaaxal donc gaz uranium ak zirconium ay denrées stratégiques la yoo xam ni Afrique fii lañ koy wute fii Afrique lañ koy wute parce que dëkku naar yi pétrole la ñu ëppale que gaz à part l'Iran et et et Qatar frontière Iran ak Qatar am na gisement bu exactement bu mel ni comme bi nekk suñu diggante ak Mauritanie ñu ngi laam-laamee ni ñaari potentiel yu àddina bi ñaari gisement yooyu rek de classe mondiale ñoo fi am potentiel boobu donc diggante Iran ak ak nu mu ci Mauritanie ak euh, astafurlah Iran ak Sénégal wala Mauritanie ak Qatar donc ñaari gisement yooyu la donc euh, requin lañ ko tuddee ñoom ñun ñu tuddee suñu bos tortue xaw ma pourquoi ces appellations d'ailleurs donc lii mooy situation bi ma rappelé man li ma ci ragal mooy impact politique bi sur le plan intérieur au Sénégal ils vont renforcer Macky pour qu'ils servent leurs intérêts Macky Sall invité nañ ko sommet G7 c'est pour régler le problème énergétique européen te bu ko régler ñoom dinañ ko jéem a samp suñu ko kon ñu waajal suñu bopp xam ne du yomb pour ñu dëj jëtti ko fi waxuma pour ñu jëlee ko fi parce que foog ñu dëj jëtti ko du yomb du yomb il foog ñu sooraale ni ay difficulté mu ngi suñu kanam te ñun dañu war a jot ci suñu réew pour jëriñu ci suñu koom-koom ci suñu alal ci suñu am-am ci suñu moomeel il foog ñu moom suñu bopp il faut que ñu conquérir suñu souveraineté il foog ñu asseoir suñu souveraineté par rapport à toutes les grandes puissances ak fu ñu mën ci bokk kon loolu c'est une mission citoyenne un engagement patriotique boo xam ne il faut que ñëpp redoubler d'effort takkuwaat defarwaat pour mën a jëm ci loolu maa ngi interpellé euh, euh, homme politique yi et principalement euh, président Ousmane Sonko mi nga xam ni moom kese lañ fi gis mu am ay velléités souverainistes maanaam moom sa réew bi Massoumou Diop doon wax ak ñoom Cheikh ant moom loolu lay jëfe loolu lay doxal bi mu jëlee maire Ziguinchor joxe na ay prémices ci moom sa bopp affirmer sa dignité ak sa souveraineté kon ñu mel noonu askan bi war nañ leen jàppale pour jot ci seen réew jot ci seen moomeel jot ci seen dignité dignité euh, wute nag euh, comme li Macky Sall def lépp lu baax fii nga jox tubaab yi lépp lu bon nga bàyyi ko fi kon loolu euh, lu ñu lu ñu yàgg tardeel la te dafa war a dafa war a dakk donc euh, combat bi dana metti pour mag Sall jóge fi dana metti loolu parce que en dehors de en dehors de affaire euh, affaire gazu saint ñu ñëw tuuti ci blogu Sangomar ji feer nga xam ni potentiel pétrolifère bu ama am solo moo fa nekk te maa ngi leen wax gaz bu nekk foofu moo ëpp gaz bi nekk euh, Saint-Louis bi nga xam ni moom la ñëpp teg bët foofu Macky Sall dafa def haute trahison dem leen di expliquer lu simple rek après naa leen ko illustrer dafa am lu lu ñuy wax contrat de partage de production contrat de recherche de partage de production CRPP ci biir contrat yooyu dañu ni bu ñu gisee pétrole ba nekk ci phase exploitation tubaab bi day jël d'abord balaa ñuy séddoo li mu investir ci recherche développement prospection ak yépp te moom mooy xaymaal boppam te neewoon naa leen sànq ni loolu définiruñ ko dans le temps définiruñ ko en volume dañ ko dëxañ ci contrat yi recouvrement coup coûts loolu lañu wax cost oil donc ñoom dañuy dañuy recouvrer une partie ba noppi li ñuy wax production restante maanaam bu ñu xew xoolee bloc yooyu ak blocu Saint-Louis recouvrement des coûts pétroliers bi soixante quinze pour cent la c'est-à-dire sur cent mille barils soixante quinze mille barils yi dañ koy téq balaa ñuy séddoo ñu ni recouvrement coûts pétroliers maanaam li ñu def ci recherche euh, prospection développement ba exploitation dañ koy fayeeku ci suñu pétrole loolu kay mooy ñun ñoo financé prospection recherche développement ba ba ba lépp ñu ñoo ko bu fekkee ni dañ koy remboursé ci lii génn ci suñu pétrole ñoom ñu fayee ko lañ ca def kon ñun ñoo liggéey liggéey bi kooku muy benn bu nekk ci comptable bi anomalie mais ñaareel bi mooy li ñu tuddee production restante ñoom bu ñu jëlee sur cent mille barils soixante quinze mille barils ba pare il faut il faut être très patient hein, et, et attentif ñoom bu ñu jëlee soixante quinze c'est pas compliqué tout le monde dit c'est compliqué pour cent la soixante quinze 75 pour cent yi c'est 100 000 barils 75 pour cent yi c'est 75 000 barils ñoom koy téq et c'est pas imposable yooyu du fay sax impôt léegi mu des 25 000 barils yoo xam ne suñu 10 pour cent yi bu ko jëlee muy 10 000 barils mu des 15 000 barils boo xam ne dañ ko tuddee production restante dans les contrats dañ ko bind en majuscule et en gras production restante ñoom ñu koy wax profit oil boobu rek mooy fay taxe la ca la ca la ca la ca étranger bi am léegi production restante boobu. suivez-moi bien dañ koy séddoo bu fekkee ni cinquante mille à cent mille baril la Sénégal dañ koy dolli vingt sept pour cent mais bu ëppee cent mille baril ba deux cent mille baril Sénégal trente pour cent lañ koy dolli suivez-moi bien jusqu'à cent mille baril ñun vingt sept pour cent la ñu am yu dolleeku ci suñu part ci production restante bi ci quinze mille baril yooyu léegi au-delà de cent mille barils ñun trente pour cent la ñuy am léegi li xew mooy euh, Woodside dafa déposer plan de production ci blocu Sangomar bi de cent mille barils jour léegi cent mille barils jour vingt sept pour cent lañ ciy am lu dooleeku léegi bu ci tegoon benn baril rek ñu passé ci seconde tranche on change de tranche pour un seul petit baril léegi yow miy déglu yow miy seetaan boo nekkoon président Sénégal nga xam ni société bi bu produire cent mille baril teg ci benn tu gagnes trois pour cent de plus est que di nga signer plan de production wu cent mille baril indiwul la quatre mille indiwul la quatre vingt seize mille cent mille la sëy net la la indi président Macky loolu la signé te loolu man Clédor gëmuma ni Macky Sall cuune na cuune boobu ba xam ni du leen wax teg leen ci benn baril on change de tranche moo tax 3 pour cent boobu di langu lu mët a lijjanti la comme blogu euh, Saint-Louis bi blogu bi ma fàttale leen fàttali leen ni c'est l'affaire Petro-Tim Aliou Sall ak Franck Timis ñoo ko jaay signé ci ay royalties sur quarante ans yu ñuy évalué woon à 6 milliards de dollars six mille milliards plutôt de dollars six mille milliards de dollars bu ñu naan Aliou Sall sama quatre cent mille loolu ay ay ay relevance la contrat de redevance la Macky yokk ci beneen signature muy plateforme bi nga xam ne dañ ko waroon moom au bout de dix ans ñu wéyale location bi kon ñoom di muy seddu foofu blogu Sangomar suñu trois pour cent mu ngi fay lang parce que plan de production wu cent mille la indi te cent mille un baril on change de a plus trois pour cent boobu nag dañ ko war a lijjanti ñu bëri ñu ngi naan euh, waroon naa dem assemblée waroon naa dem assemblée waroon naa dem assemblée c'est pas grave je dans la mouvance je dans la coalition am na ay mbokk yu am chance su dem assemblée ku mel ni sama sœur Maïmouna Bousso ku mel ni sëñ Cheikh Thioro mbake ku mel ni euh, Abass Fall euh, ku mel ni Birame Souleye ñeneen ñi ñi dem assemblée ñëpp. bëri naa ci bokk ay nit yoo xam ne mën naa liggéey ak ñoom kon euh, ku yeboo mu waaj assemblée bii di ñëw ministre de l'énergie ministre des mines bu fay ñëw dina indi lu leer nañ nañ nañ nañ nañ parce que député yii di ñëw ils seront outillés pour poser les bonnes questions pour mettre sur la table les bons kon tey jii ñun suñu baat àgg na fu baatu ay député sax àggul suñu action citoyenne mën nañ ko exercer en nous appuyant sur nos collègues députés pour qu'on pose les bonnes questions pour qu'on fasse les bonnes réformes euh, les, les les bonnes propositions de loi les bons amendements et tout ce qu'il s'en faut et les véritables commissions d'enquête parlementaire donc loolu ñun dinañ ci orienter suñu équipe de de de de de de d'élus à l'Assemblée nationale pour que assemblée bi nekk une assemblée de rupture même boo fa nekkul physiquement mën nga bokk ci travail parlementaire bi incha allah man dinaa abattre un travail parlementaire au profit des futurs députés de la coalition Yewwi Askan bii ñëw kon problème yi yëpp danañ ci jéem suñu kéem kattan ci saafara lii premier G kese la suba incha allah euh, invité nañ ma euh, Walfadjri euh, bugguma ko woon wax sax mais promettoon naa leen en fin de de communication dinaa leen expliquer donc suba xam naa dinañu wéyal waxtaan bi ci Walfadjri te gannaaw loolu tamit naa leen defal benn vidéo illustré boo xam ni documentation bi yëpp dina ci nekk kon ñu fàttali rek ni euh, président euh, Olaf Scholz euh, le chancelier allemand ñëw na fii wut si gaz ci Macky invité nañu Macky Sall G7 pour mu wax leen lu leer fii quelque jours mois de juin juin nous sommes presque on est la fin du mois pour mu wax leen lu leer ci gaz bi ñu soxla ñoom euh, ñaareel bi bi mu fa jógee dem na Niger pour am uranium pour retourner ci ay centrale euh, euh, nucléaire pour am énergie atomique kon Europe fi mu nekk nii li mu soxla mu ngi koy wutee ci ñun kon ñun ñu ngi en pole position li àddina bi gën a soxla mais ñun ñoo ko yor te Russes yi sax ñoom it bu doon seen sago européens du ñu jot ci suñu gaz ñoom bu ko mënoon xëccoo ñoom xëccoo ko xëccoo ñoom kon ñun fi mu nekk nii on doit tirer notre épingle du jeu au lieu ñuy ñuy ñuy lécher ay bor euh, di jouer les les vassaux maanaam ay ay suq ay dunguru ay vale valet Europe ak tubaab bi donc euh, loolu moo doon solo waxtaan bi te bokk na ci li ma ci tiit. impact politique bi maanaam ki nga xam ni nangul na leen ñoom ñu jéem ko samp suñu kaw loolu nag lu nar a metti lay doon bu ñu jéemee samp euh, euh, Macky Sall suñu kaw ngir seen intérêt ñoom seen intérêt énergétique et minier européen yi par rapport à ce conflit là euh, dana metti trop parce que boobaa day laaj beneen taxawaayu Sénégal yi pour ñu jot ci suñu réew te jot na ñu jot ci suñu réew teg ko ci ay loxo yu koy jëmale kanam ci ay loxo yoo xam ni dañoo gëm Sénégal gëm seen bopp kon loolu moo doon solo waxtaan bi tey maa ngi leen di jox rendez-vous euh, suba incha allah Walfadjri Walf Grand Place vers 22h30 incha allah salaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatu.